xaside googu si ne waxtaan ak te loolu mooy li nga xamee ne suñ borom da ko santaane suñ borom dig la ko ndax moo ne i'malu ala daawuda sukran moo wax it feneen tamit ne la in shakartum la asidanakum ngir wane ne ku sant ñu doole la waaye moo wax feneen tamit ne wa in taskuru yardahu lakum bu ngeen sant yàlla suñ borom gërëm leen nga xam ne sant suñ borom dafa bokk ci ponk yoo xam ne ponk yi ci ponk yi nga xamee ne di jëm ci diine ci la bokk ndax moo tax suñ borom di wax fu bare bare di ŋàññi ñi nga xamee ne duñ sant suñ borom di wax wa xalilu min xibaadi sakoor kon yoonu murid wi yoonu sant la Cheikhul Xadim yi nga xam ne moo sas yoon yi moom itam santaakonu suñu borom la wane importance sa sant suñu borom moo waroon suñu borom di tàgg nu ko kaane abdan sakura moo waroon nañ tamit yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba ko suñu borom wàccee ci moom inna fataha laka fathan mubinan li yaxfira laka allahu ma taqadda min tanbika wa ma taaxara wa yutima nicmatu alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuruka allahu nasran mu jug di naafila guddi ba ay tànkam neewi xaayi sa ne ko waa yow coono bii lu tax nga di ko def te suñu borom jéggal na sa bàkkaar yu njëkk ak yu mujj mu ne ko afala akuna abdan sakura ndax du ma nekk ab jaam boo xam ne jaam bu sant la gis nga iblis ba may wax ak suñu borom daf ko xam ne ko wala tajidu aksarahum saakirina sa jaam yi dinaa fexe ba ñu bari ci ñoom duñ la sant moo tax alxuraan di wax ci bari walaakin aksar naas laa yaskuruna nga xam ne sukru bi moom moo dëppoog la ñuy wax kufru moo moo safaanoo la ñuy wax kufru nixmati képp koo xam ne julli woo ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam rek képp koo xam ne santoo suñu borom tabaaraka wa taala rek dafa mel ne kon weddi nga xéewal yi kon sukru boobu feeñ na ci biir xasida gi ci fu baree bare nga xam ne mën ngaa wax ne xasida yi kon xasida ak julli ci yonent bi la waaye xasida ak sant suñu borom la loolu la cay tegtale mooy lam wax ci biir ne wa hattali min fadlika al azimi maa xaadani li sukri bi nasim suñu borom may nga ma ci sa ngëneel yu màgg yi loo xam ne moo ma moo ma poussé ci ma di la sant ci way yi kon dafay wax ne xasida tamit kon xasida ak sant suñu borom la comme ni mu ko waxee aw sihni zukra ala nihma yi yaa muxlija safaa'i wa namaay bi an tusalli salaatan anni ala nabil muntaxa bil man ni suñu borom yaa ma digal yaa ma may xéewal ba ma mën a sant xéewal yi waaye lu mel ne nag dañ ko wax ne ko sant xéewal boobu mooy lan mu ne kon mooy julli gi may julli ci yent bi sallallahu alayhi wa sallam ak fi mu feneen fi mu waxee ne min yaqbali sukra li waccikal karimi yaa man ayaadihi la daya lan tarim bi an tusalliya wa an tusallima xanni ala man bi yubaaxil xulama dafa wax ne yàlla da nga nangu sama sant ki nga xam ne maa ngi koy sant ngir sa jëmm mel ne dañu ko sant kooku mooy lan mooy kon julli ci nga julli ci nga julli ci yonent bi te sëlmal ci moom yonent bi nga xamee ne ci man lay fukkare woo borom xam-xam yi nga xam ne lu mat juróom-ñaar fukki bayit yoo xam ne lépp mi ngi xasida gi te sant suñu borom tabaaraka wa taala rek lay firndeel donc la ci njëkk mooy la mu wax ne laka bi laa shikaayatin min ni sakuuru yaa man waxabta li muraadi sakuur ak fi mu waxee ne wasaat li dahra bi hamdin wa sukur wa biriran bi ka wa anka yaa sukur suñu borom nag ma seeral biir jamono cant gi ma lay cant mu cantuk xol ak cantuk laamiñ ak ngërëm li nga xamee ne gërëm naa ko laka sukuur yi ilal jinaan yi wali asabto nafsakal janaan yi suñu borom maa ngi lay sant ba keroog mooy dugg àjjana te nag ma teeyal sama bakkan ak sama xol ñu doon leen xamal ne xasida gi muy nóot daan di ko composé mooy salaatu ala nabi ak noonu ñu ko leeroon ba agsi woon tamit ci sant yàlla ni mu feeñee ci xasida gi nga xam ne lu mat juróom-ñaar fukki bayit mi ngi ci loolu yëpp ci loolu la jëm ñu ak tolloon ak yéen ci bayit bi ñu doon wax laka sukuur yi ilal janaan yi wali asabto nafsakal janaan yi nga xam ne sëñ bi fa wax ne suñu borom samay cant ñeel na la ba keroog ajana te it teelal nga ma sama bakkan ak sama xol ak beneen bayit muy wax laka sukuur yi ala asmaani yaa maalikan malaktani samaani wasxaat li dahra bi anni saakirun laka ala ma xaasuhul masaakir ak fu muy wax salli salaatan laa tasaalu ba raaxiya naamiyatan maskuura baaxiya ak yaa mursidan ilaya xaada rusda yaa man lahu sukriya min zil xaxda ak laka sukuur yi baax da amdin xaalidin xanit ci ummi abadan abadan wa walidi waliya xut sukran wa ilman badaha wa ajra nafhan nafha taaridin man xadaha warfax makaatibi yaa sakuuru yaa xayra man naxaaluhu sukuuri saraxtu baaniyan bina zikri wajxal nukuusi laka xayra sukri waskur ayaati yaa sakuuru yaa raafixan mini lahu sukuuru ak fi mu waxee naan wa an nusallima alayhi fa aqul li wajhika alkarimi liskir maqul ak fi mu waxee naan laka sana walhamdu wa sukru maan alal la fi fatlaka lii xat jamaa neen yàlla tagg ak santuk xol ak santuk làmmiñ ñeel na la mboolem seen ci kaw ki nga xamee ne sa ngëneel lépp moo ma ko dajaleel jox ma ko ak ñu wax wasux li xëyri jumlatal mafasidi abdan shakuran wax mi ni xan fasidi mboolem li yàq yàlla na nga ko yàlla ma ko dàq yàlla nga ko dàq mu jëm ci keneen ku dul man te def ma nekk jaam boo xam ne jaam buy sant la te nag ma aar ci lépp loo xam ne dafay yàq la ko sukkuur yi abadan wa hamdi yaanati min xatay wa hamdi sama cant cant xool ak cant làmmiñ ñeel na la ba faw ak ñu wax faraxta bayni wa baynal kaasirin jamaxta bayni wa baynal saakirin tàqale nga sama diggante tàqale nga sama diggante ak ñi wedd yàlla waaye boole nga ma ak ñi nga xam ne ñooy sant yàlla habli dawaama sukri lil jinaan bir ruuhi wal jasadi wal jinaan na nga may ma saqoog ma saqoog sant yàlla ba àjjana cant goo xam ne ci ruux sama ruux laa koy def ak sama yaram ak sama xol ak suñu waxee musalliman alayhi fil jamii ajra sukuri rafi sami ba àgg suñu wax wal taskiru huna aqulu yaa xayra man yan xoola maqul ak mi wax naan wasaat bi sukri laka fiisal yow mi wa baxduhu yaa man xamaa xandaw mi ak mi wax naan tabax nabaxta nii tanbiha shakirin alimin baaxin ilaya nafa xaada bi xolom ak mi wax naan laka alaya sukra min saxbaana wa xablahu baxdu xurbaana sun ba maa ngi sant ci weeru saxbaan ak li ko jiitu ak la ca kanamam ak mi wax naan waqtub leel yow ma wa baxdahu ridan fi jumlatil afraadi liskur xarada mini ak aqbali sukura li wajhikal karim yaa man ayaadihi la dayarantarim ak mi wax naan waccaal bihi xatti yaa sukur yaa man lahu minin taxa sukurun ak mi wax naan sukuran wa hadiyan wa wilayatan rida yaa man waxaanil xida banim jeexee ak mi wax naan uskuru wa allim wal tubaarik ajib wan sax bima yudumu ahla ajabi ak mi wax naan wasku tadaruci yaa samihi yaa waaxidan tanxoo lahul jumuh ak mi waxe naan bi xayri jamhan abadan fa sufri laka wa xamdi maadiyan bi zikri atalaxtani wasaxtani fa sukuri mi ni taxabal yaa mu ni la dukri ak mi wax naan loxoo sukuur yi abadan xala suhuuri wali jaada bi suhuurin utóot nee na maa ngi sant suñu borom tabaaraka wa taala samay cant ñeel na suñu borom tabaaraka wa taala ci mboolem weer yi suñu borom moo ma jox ak feeñ ak gulaab ak mi wax naan waccaxal lisaan yi saakiran ka xal bi yaa ma ko neen bi def yoon jal bi na nga def sama xol ak sama làmmiñ ñu dara sant ak mi wax wal tux ni ni yaa naafi bi sukuri xan sabrin wa xilmin wa kulla makri ak mi waxe naan wal tox ni nii an mawjubaati sabri wa mawjubaatil ilmi waskur sabri ak mi waxe naan yaa man xamaani xan xidaakal maxoya laka sukuuri xabla yawma tarwiya ak mi waxe naan ubaxdahu faqwal sukuuri minni war warfaxu lil xabsil azima anni sun borom na nga nangu samay sant yi may lay sant te nag mu ko yëkkatil ba ca aras mini sukuuri irfax ilal kursi bi xormatil ismil alil xusi samay cant nag ma ko yëkkatil ba ca kursi ci darajay turu yàlla nga xamee ne mooy bu màgg wa wasaat bi sukri laka yow ma tarwiya yaa man saxaani min muyóodin min fuyóodin murwiya waxam lahu bu baxdu wasaat lii bi xayri xayrin urida ko fotli ak warfax xurufi bi sukuur yaa sukuur yaa xayra man naadaa huwa abdan abdun bi sukuur ak ñu waxe naan an kulli sayin bi janaa bi laa yaliix yaa man bi xamdi wa sukri wa sukuur yi xaliix ak ñu wax warfax bi sukri laka rabbi xawli yaa maaxiyan taxarubin taxarubi wa jawli ak fi waxee laka sukuur yi bilaa kufraani yaa man xamaa nii xañul xusaani nga xam ne foofu boo ko dee xool lu mat ñaar fukki bayit la ak ñett yoo xam ne yëpp ci biir xasida gi la mooy laka sukuur yi bilaa kufraani yaa man xamaa nii xañul xusaani laka sukuur yi alal binaay yaa man xamaa nii xañul xanaay ba fa muy waxee sakartu ko allahum bil midaadi wa yaa waahiba nusrat wal midaadi ba agsi ci ñu waxee laka sukuur yi beneen tiaan yi yaa man lahu sayriya sontian nga xam ne foofu ñaar fukki bayit la ak ñett yoo xam ne yëpp du fi ne cant feeñ na fa nga xam ne loolu yëpp dafay tegtal na kon xasida gi xasida rek cant la sëñ bi da cee boole cant ak julli ci yent bi sallallahu alayhi wa sallam comme ni nga xamee ne malabu sëñ ni sëñ bi saa boole ñaan ak sant suñ borom ba tey may waxaat ci biir xasida gi naan war sax bi sax yi bi sukrin raaxiya yaa raafixan laysa yasaalu baaxiya nee na waccaal xuruf haadihi al muqaddama maqbulatan mashkura muhasama naan lisaat bi sukri laka fil farajab fi siwaahu yaa mudi man lil xajab nga xam ne kon boo xoolee ci biir juróom-ñaar fukki bayt yooyu ma la wax sëñ bi wax wax na ci ne mi ngi sant suñu borom ci mboolem bis yi laka sukuur yi al ayaami yaasal muxaalifa wal xiyaama suñu borom samay cant ñen na la ci mboolem bis yi ak li mu wax ne wasaat bi sukri laka fisal yawmi wa baxduhu yaa man xamaa xandami sun borom nag ma seeral cant gi ma la cant tey ak lu ko jiitu noonu mu sante suñu borom tabaaraka taala ci bis yi ak ci saa it noonu la sante suñu borom ci biir xasida gi ci weer yëpp comme ni ma ko waxee lii xaat bi sukri laka fil fat rajab wa fi siwaahu yaa mudi man lil xajab yàlla na nga seede cant gi ma lay cant ci weer rajab bii ak ci loolu weer woowu yow mi nga xam ne yaa ma saxaral kimtaan ak fi mu waxee ne yaa mursidan ilaya xaada rufda yaa man la hoo sukri yaa mintal xaada nee na yow yàlla yaay ki nga xam ne yaay jubal te yaa fab sa njub gi jëmale ko ci man kon samay cant ñel na la la ko dàmbalee ci weeru silxaada muy diggu tabaski ak laka alaya sukra min saxbaana wa xablahu wa baxdahu qurbaana samay cant ñel na la la ko dale ci weeru saxbaan ak weer yu ko jiitu ak weer yu ci kanamam nga xam ne kon sant na suñu borom ci mboolem bis yi waaye sant na suñu borom ci mboolem weer yi lahu sukuur yi abadan ala suhuur yi wali jaada bi suhuri utoon neen samay cant ñeel na sun borom ci weer yëpp moom mi nga xam ne moo ma jox ak feeñ ak laab comme ni ma ko waxee laka sukuri rabbi min muharramin li xatmi sil xijja xatmin hulum samay cant ñeel na sun borom li ko tàmbalee ci muharram mooy tamxarit ba ba ca mujjantaloog sil xijja bi nga xamee ne mooy tabaski waaye noonu mu santee sun borom ci bis yi sant ko ci weer it ci biir xasir gi noonu la ci sant sun borom ci at yi ci feeñoo itam comme ni ma ko waxee laka sukuri ala kulli sanna yaa man taxaala xan ma naa sant samay cant ñen la yàlla ci at yëpp yow mi nga xamee ne kawe nga wëlif nelaw ak gëmënt waaye it noonu la sant suñu borom ci mboolem temps yëpp laka sukuur yi ala asmaan yi yaa maalikan malakani samaan yi yow suñu borom samay cant ñeel na la yow mi nga xamee ne yaa ma moom loo sama jamono waaye it noonu lay sant suñu borom ba ajjana laka sukuur yi ilal janaani wali atat nafsa kal janaani samay cant ñeel na la ba ajjana waaye noonu mu sant suñu borom ci temps yi ci ci ci waxtu yëpp muy bis yeeg weer yeeg at yeeg diir jamono di ko sant ba keroog ajana noonu la sante ci biir xasir gi tamit mboolem xeetu cant yi nga xam ne mooy cantuk sukkur sant na boromam ci ruuxam ci jëmmam ak ci xolam comme ni mu ko waxee habli dawaama sukkur la janaan biir ruuxi wal jasadi wal janaan nanga ma may ma saxoo ma saxoo laa sant ba ajana sama biir xol ak sama jëmm ak sama ruux wàcc xal lisaani saakiran ka xal bi yaa ma ko neen bi def ñi wal jal bi neen na nga def sama làmmiñ ak sama xol ñu dala sant kon sant na ci biir xasit gi mboolem xeetu sant yi sant na yàlla ci bisi ci weer yi ci at yi ci mboolem jamono yi di ko sant ba keroog àjjana waaye it loolu moo tax it muy sant suñu borom ci mboolem xeetu sant yi sant ko ci ruum ci làmmiñam ci xolam ci jëmmam ci léppam moo tax mu yeyoo nekk abdu sakur jaam bi nga xam ne di sant boromam moo tax mu wax ci biir wasux li xayri jumlatal mafasidi abdan sakuran wax mi nii xan fasidi waaye li tegtal tamit ne xasiida gi xasiida ak sant suñu borom la waaye xasiida ak julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am na ñetti bayit yoo xam ne sëñ bi dajaa boole loola muy julli gi ak sant suñu borom gi mooy fi wax salli salaatan bi salaamin tasmahu biha sukuuri wala mun naa lii tajmahu yàlla yàlla na nga julli te sëlmal ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam julli goo xam ne ak sëlmal goo xam ne ci ngay déggee sant yii nga xam ne moom laa sant tey yaay ki nga xam ne yaa ma dajalal mboolem xéewal yi salli salaatan bi sukuuri tasadu maa salaamin bi xinaa yi yasadu suñu borom na nga julli yonent bi sallallahu alayhi wa sallam julli goo xam ne moo may seereel samay cant yi ma lay cant salli salaatan lii bi sukurin tasadu maa salaamin lii bi xamdin yasadu yàlla nga julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam julli goo xam ne moo may seereel cant gi ma lay cant muy cant sukur ak sëlmal goo xam ne moo may seereel cant gi nga xam ne moom laa lay sant muy cantuk xamdu kon mën nañoo wax ne kon xasiida gi xasiida ak julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye xasiida ak sant suñu borom taala